Kër Mbaye yi gën a dóor si année bi Kër Mbaye Fall axal émission Kaddu euh, ngi euh, bi mhm. euh, ñu ngi taxaw ki nga xam ne mooy gën moo mhm. am si trois prix ñu bàyyi ko maa ngi nuyu Kaddu Jolof ñëpp di béggee ñëpp nga xam ne ñoo ngi teewlu auditeurs yi voilà di leen wax ni man la gën moo xam nga meilleur artiste de l'année di kontaan si nomination yëpp voilà meilleur mixé choix du public yooyu noonu yëpp mu ngi si biir quoi waaw trois trophées boo ko jotee lan nga sentir lan nga yëpp satisfaction la ak encouragement quoi da ngay bëgg gën a defaat quoi loolu rek laa sentir quoi bëgg defaat affaire yi yokk quoi incha allah. incha allah wax public bi ak ñi nga xam ne. waaw maa ngi say défi yëpp jaar. yee maa ngi leen di parce que ñoom ñoo moom trophée yëpp ñoom ñoo tax ma nekk fi tey di leen wax ni xam nga affaire yaa ngi ñëw nañ ñu xaar mooy loolu. jaajëf